Euh, Amady Ba kon laa tudd man maa yor kàddu kuréel gi saytu àqu waa Ngoundiane euh, mbokki taskatu xabaar yi mbokki Ngoundiane ak mbokki Sénégal ñi ngi leen di sant di leen gërëm waaw dafa dafa baax nag ñu fàttali kon fa ñu jóge ndax ñaari at ci ginnaaw dañu soobu woon ci benn xeex boo xam ne kat dañ doon janoog suñu meer du woon xeex nag yëkkati xeer xeex la woon pour jubbanti lépp loo xam ne jubul woon li ko tàmbalee kon ci juuti bi kon dana baax ñu wax fan la ñu jóge fan lañ toll tey ak fan lañ bëgg yegg maanaam fii la mois de février bii ñu ne dañuy fàttali ne que wax dëgg yàlla juuti bi dafa wàccoon lool te ba muy wàcc nag xamoon nañ chiffres yi xamoon nañu tollu ñu amoon ci nag ay jafe-jafe moo taxoon kat nag moom ñu tàmbale boobu xeex ngir fàttali kon dañu wax ne que ji 2010 juuti yi mu ngi toll woon ci fukki fukki million ak juróom ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti junni ci 2011 mi ngi toll woon ci ñaar fukki million dafa yokk téeméer ak ñeen fukk ak juróomi junni ak ñaar téeméer ci 2012 yéen ñëpp xam ngeen ne année électorale la woon mu wàcc ba fukki million ak ñett ak téeméeri junni ak juróom ñett fukk ak ñett ak ñeenti téeméer 2013 mu gën a wàccaat fukki million ak ñett ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn téeméer ñu ne nag kon jóg dafa jot nag ñu tàmbale nag def suñuy gëstu bi ñu nekkee ci 2014 ñun dañu seetlu ne que am na ay ticket yoo xam ne dañ doon jàll ay ticket 2013 yoo xam ne dañu doon circuler ba 2014 muy premier indice ñaar ca aussi numéro de série yañ doon gis ci ticket yi aussi moom moo jéggi woon dayo parce que boo nee ñaar fukki junni wala ñaar fukki dërëm pour mu yomb moom lañu am ticket ñu gis numéro de série boo xam ne boo ko multiplier par 1000 francs bi mu amul ëpp tolluwaay boobu kon dafay indiwaat ñaareelu indice bi maanaam kon liñ doon woone ñi bëgg a firndeel foofu mooy ne que numéro de série yi moom moo ëppoon li nga xam ne moom la maire doon énonce yi ci conseil municipal bi kon nag ñu ne nag nag ñu jóg nag ñetteel indice bi moo di bi xaalisu Ngoundiane di wàcc boobu mbay joon communes yi yëpp ma ngi fay liggéey ñi nga xam ne aussi ñoom la dénkoon liggéey bi mooy collecteurs yi aussi boobu aussi seen am-am day yokku ginnaaw ñoom pourcentage lañ den doon fay kon ñoom seen xaalis dafa war a wàññeeku mais warta yokku xaalisam kuy xaalisam du wàññeeku di wàññeeku nag doo tabax doo jë doo am ñeen fukki xar doo am fukki nag boobu mooy ñetteelu indice bi foofu lañ xamee nag kon am na problème ñu daal di sas nag suñuy conseiller don alaaji ñaar mii ak Amadou Ngom mhm. ñu def benn xeex ci biir conseil ba ñu taxawal fa contrôle contrôle booba nag moom moo indi woon lii contrôle ba nag dañu wax ne kat lañ fi amee moom mooy li Ibou doon wax sànq am nañ ci wax dëgg yàlla moom ay ngëneel waxuñu sax tëj waaye li ñu leer ba leer mooy suñuy recette moom dafa yokk carrément parce que bi ñu tàmbalee bi ñu ñëwee ba 2013 lañ leen waxoon ne fukki million ak ñett ak téeméer ak ñaar fukki junni ak juróom-benn téeméer 2014 mag dafa ganoon a dee fukki million ak ñaar ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ciy junni. bi ñu defee nag maanaam liggéey boobu nag ci 2015 dañuy yokk xool ne que yokkute kat am na ndax li jóge ci fukki million ak ñaar daanu ci ñeent fukki million ak juróom. wax dëgg yàlla dañu gis ne que lu bon bon fanweeri million ak ñaar topp na ca loolu. xanaa li xale yi wax kon ndax dañu war a xëm ndax dañu war a rus ndax dañu war a kontaan. kontaan mën na ci am ndax lu jóge ci fukki million ak ñaar bu demee ba ñeent fukki million ak juróom ñun ñi nga xameen ñoo tàmbale woon xeex bi mën nañ cee kontaan. moo tax kon alaaji ñaar alaaj Amadou Ngom waa Ngunjaan ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm. Ibou ngoom ak Lamine ngoom ak jigéen ñi nekk yëpp ñu ngi leen di sant li ngeen di gërëm parce que ñeen fukki million ak juróom wax dëgg yàlla xéewal la ci loolu rek ci droit de stationnement bi balota bi kan ci droit de stationnement bi rek wax nañ ne que kon lu gàtt-gàtt fanweeri million ak ñaar am nañ ko bénéfice mais foofu du foofu donc parce que foncier bâti bi en 2014 ci compte de administratif bi 48 000 francs dong moom la ngu njaan amoon te boobu ñu ngi prévoir ne war nañ jot fukki million ak juróom-benn fukki million ak juróom-benn nag ñu jot ci donc juróom-ñeenti junni wax dëgg yàlla kon loolu problème la. te ci 2015 bii nag lu bon bon foncier bâti bi dugal na fanweeri million. kon boobu aussi mën nañ ko critiquer aussi euh, euh, Sedine bi. foiraay bi aussi ci 2014 ba léegi aussi 695 mille dong la dugaloon. loo xam ne sax matul sax téeméeri junne ak ñeent fukk mais ci 2015 bii nag lu gàtt gàtt kon foiraay bi dugal na kon ñaari million kon boo boolee fanweer ak ñaar boolewaat fanweer booleeg ñaar lu bon bon muy juróom benn fukk ak ñeenti million yoo xam ne yéen waa Ngoundiane ñun ñii doon xeex dugal nañ ko ci keesu Ngoundiane problème bi nag mooy xeex nañ ba am boobu xaalis waaye mbir mi nag waaye dafa des bañ ca jógee aussi. waxoon nañ ko fi waxaat fi am na ñuy ay jafe-jafe ci wàllu ndox wax nañ ko fi seen kanam waxaat ko fi seen kanam jafe-jafe yu metti boobu suñu forage bi moom moo paan suñu forage bi mu paanee nag mbay jon dem na ba rajo gindi ku nekk da ko dépassé mënatu ci dara taxaw nu fi na fi ak Augustin Tine ministre nekk nañu jàppale ci forage bi ginnaaw moom amatu ci pexe nag ñun ñu wuti suñuy pexe ñu commencé ku nag ci teen bii buur jaag 1864 lañ gas bii bi teen boobu moo mu mag moo ñu mag ñi fi nekk ñëpp boobu teen nag moom moo fi nekkoon moom la ñu tàmbalee te boobu teen bi yàqu na ci biir yàqu na ci li ko wër ñu dem nag alaaji ñaar mii moo njëkk a dem conseil rural ñaan ndimbal nag pour que conseil rural ak mairie ba jàppale ñu ci defaraat teen bi ñu ñu lànk ñu defaraat defaat délégation dem carrière ca mine sollicité leen ñoo ñu lànk ñun ñu ne kon nag la ñuy seet suñuy pexe suñuy pexe nag moom mooy lan woo waa Ngoundiane nag ak doomi Ngoundiane nag ñii cotiser am na ñu joxe ñaar dërëm am na ñu joxe juróomi junni am na ñu joxe fan juróom benn am na joxe 1000 francs ñu daal di dajale nag ba lu war a mat juróom-ñett fukki junni 400000 ñu defaraat teen bi ci biir ak ci li ko wër taxawal nag benn comité de gestion ca loolu nag ñu ne wax dëgg yàlla teen bi jekk na nag waaye nag la la ca des nag moom mooy poli te président Macky Sall ci 31 décembre bii sax wax na ci li ñu mel dafa jaadootul nag wax dëgg yàlla ay jigéen ne ci biir Sénégal di wëgg te loolu moom moo fi nekkoon. ñun ñu ne leen paxal ak moom mooy lan kon muy pompe ñu daal di dem ci Mbaye fay PDG wu CSTP SA mu may ñu pompe. teen bi maye ko joor maye ko càngaay dëkku mbay jon maye ko mburwaay maye ko jaag pompe yooyu yëpp kon mbay fay moom moo ko fi maye kon ñu sant ko ci aussi gërëm ko ci ñu def ci kon wax dëgg yàlla benn comité de gestion ñoo xam ne ñoom ñooy saytu teen yëpp di jaaye aussi bidon 20 litres bi 10 francs ñaar dërëm alors que forage bële fukki dërëm lañ koy jaay comité de gestion forage bi mètre cube gi 300 francs la koy jaay kon ñun wax dëgg yàlla jaayuñu woon dañu doon dimbale ca lu bëri néew nag la ñu dajale aussi compte rapport bi jox jox nañ leen ko teen bii rek ginnaaw moom moo intéressé mbay Dione teen bii rek moom la ñu génn si la teen yi ciy def yëpp defal neen rapport waaye teen bii dong ci li ñu dajale ci ñaar dërëm ñaar dërëm ëpp na juróomi million ci li li ñu am. ca loolu aussi génn nañ ci ay dépenses luy facture yeeg génn ñi fi nekk aussi ñu leen di fay mais aussi ay œuvres sociales parce que dañuy def gis na kat ci biir dëkk bi bu xew amee comme dëj boo ñëwee doo fay boo fi rootoon aussi téeméeri bërigo wala junniy bërigo aussi doo fay. ay jàng aussi bu amee. kenn du fay te école bi aussi école bii ni aussi buuj ngoom duñu woon fay ndox école liise bi aussi six aussi teen bi moom moo leen yoroon aussi duñu fay ndox kon wax dëgg yàlla lu bon bon aussi kon comité de gestion yooyu def nañ fi lu am solo